maître Ngagne Demba Touré placé sous mandat de dépôt gannaaw ba nga xamante ne nag mu doon janook euh, juge deuxième comité ñu koy wax Mamadou Seck Mamadou Seck nag daal dina koy yóbbu mandat de dépôt moom ñi nag lañ koy toppee daal moom mooy dafa am euh, rapport ak association euh, wàllub terrorisme ak offense au chef de l'État ak trouble à l'ordre public moom nag loolu lañ ko daal di toppee gannaaw ba mu église exilé lu tollu ci juróom benn weer bu mu ñibbisee nag doon amal ab caravan ci mbedd Ndakaaru yi ci lañ ko daal di teg loxo démb ah, ca këram waa division des investigations criminelles ñoo ko daal di ne coppet daal di koy yóbbu jox teg ko ci loxol ah, juge d'instruction Mamadou Seck mu daal di koy ah, daan ab mandat de moom mi nag jamono jile ña nga ca mandat de dépôt ca diwaanu Rëbës gannaaw ba nga xamante ne nag ñi leen di greffier ñoom nag nee nañ combat bi danañ ko gën a wéyandi ndax ñiy banque seen loko ci ah, tribunaux yi nekk ci biir réew mi yëpp duñu liggéey mu mel ni nag nee nañ daal dañuy paralyser li nga xamante ne rek moom mooy li nga xam ne moom mooy administration judiciaire bi foofii ci ah, tribunaux yi waaye nag rawatina nag ah, ci diwaanu Matam nga nga xam ne fa lañ ko daal di affecté woon moom maître Ngagne Demba Touré ci la woon quitté réew mi daal dem ci diwaanu Mali bi mu ñibbisee nag ci lañ ko daal di teg loxo daal di koy jébbal yoon ñu wax nag ak beneen cas kawu Khalifa Ababacar Sall boo sàggonoon nag bukki bi matt Rose nii dana ko daal di matt gannaaw ba Rose Wardini daal di retiré lii di candidature am ci élection présidentielle yi nga xam ne dañ koo puus Khalifa Ababacar Sall nag nee nañ dafa am lii di carte d'identité nationale bu française ak lii di euh, nationalité française ca atum 2000 cinq ba tey jile nag moom mi la di xalifa Ababacar Sall gannaaw bi nga xamante ne def nañ ay enquête mu bokk ci ñi am nationalité française ak carte d'identité française ba tey nag dañuy ndi ndax moom mi la mbir bi ni mel bu ko daal di dalee ba ñu def ay enquête ba mu mujju leer ndax dafay décider comme Rose Wardini moom bi doon wax ne naa bokk rek moom mi nga xam ne ñu ngi ko toppoon ci wàllu wàllub luubal xaalis caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru ba ko bàyyee ba tey ji nag bokkutoon ci élection présidentielle 2019 2024 borom naa bokk rek waaye bokkom leeragul ndax coowal double nationalité ak carte d'identité nationale bu française bi nga xam ne am na ko ci mille cinq ba tey jile